tey ñu attaqué waat Pastef à saint ak ay paaka ay jaasi ay grenade lacrymogène ba gaañ fa ay xale lii nag responsabilité état bi la parce que réew mi dafa changé man maay premier ministre du Sénégal man Amna sañ en tant que premier ministre ma suis ay ndigal jox ko ministre de l'intérieur jox ko ministre de la justice parce que ministre de la justice c'est une autorité politique c'est pas une autorité judiciaire Pour kenn qui nit monsieur le ministre de la justice dafa am indépendance mënuñu ko def loolu man su ma ministre de la justice poursuivre le déchet amul sañ-sañ bañ a woo procureur général kooku woo procureur pour ñu poursuivre métier loolu mooy dëgg bi ministre de sama gouvernement la nekk man ñoom ñëpp maa leen consulter proposer ko président de la république mu valider loolu mooy gouvernement du Sénégal kon déglu leen ma bu baax li may wax liy wane ni réew mi am na soppi mooy man bi campagne commencé ba léegi woo ma ministre de l'intérieur en tant premier ministre woo ma ministre la justice en tant que premier ministre waaye en tant que woo naa leen début campagne bi laa woo ministre de l'intérieur ne ko Barthélemy jënd na ay gànnaay déglu leen ma rek déglu leen leen ma non non leen ma leen ma.

man c'est le candidat tête de liste Ousmane Sonko moo la woo say pour loolu nous réglons rapidement. agression bi njëkk premier jour campagne nous avons ko en candidat Nous ko li ministre de la justice en tant que candidat wax leen Le de Le di wax ñu toog dem agression zéro arrestation non, c'est la faillite de l'État et c'est le candidat qui parle dama nous ñu xam nous ñun dañuy gérer état en tant que candidat l'État a failli à garantir la sécurité des du parti passifs qui se trouve être le plus grand parti du Sénégal et qui peut régler lui-même ses problèmes talal du Bataille ba pour les parce que ñoom nee nañu romb nañu ab convoi mu ab ñu yóbbu Sonko Sonko Assane Diouf wàcc ne ku fi wax Sonko ñu def la dangam ñu génne seen i jaas yi yéen di ngeen gis image su ngeen demee ci réseaux sociaux yi loolu garaaw la ci réew mi. woo nag ministre de nee naa ko depuis 15 ans dans benn waaye fi nekk ñu tuddee ko Barthélémy Dias mu xamadi xamadi ba fu yem. yaruñu ko waaye baayam bu dee baayam moo xamadi moom na ngeen ma dégg bu baax parce que baayam yàgg ngeen dégg baayam di wax lu bon ci man ma noppi ne jaru ko waaye bu matoon li mu doon man ma mat ko doom lu taxaw ci télé yi di wax lu bon ci man ak lu ñaaw waaye depuis 15 ans toutes les sources de violence benn waaye fi nekk di jaay ni moom EB booy Dakar la di la tuuti ay nervi foog ni loolu mun na wëy moo tax ni bis ni loolu jeex na Sénégal bis si campagne bi man dama ne woon à partir de jeudi damay dem defi mbir na Yoro Fula def Vélingara terminé en beauté à Bignona waaye fii la ñuy toog ñoom ñoom dootuñu campagne ci réew mi.